jërëjëf mbokk yi seetaan ci wasaare lamb mbokk yi nuyu nañ leen am kontaan ak mbégte comme niñ leen koy defalee saa su ne ñu ngi fii ci stade Diop Iba Mar mise bi nag cinq millions la waaye mbokk yi compétition bi li ci gën a neex mooy ndaanaan yi doon séntu ci làmb na bëre simple bi dañoo bindu ku mel ni Doudou Sané gis ngeen ko mu dugg si bindu ku mel ni Boy Faye ku mel ni euh, Serigne Ndiaye 2 Fambuda ak kan kii di nga xamante ne mooy Émile François Gomis ñëpp doon ko xaar ci lutte traditionnelle bi depuis bi muy préparé combat ak soq ba tey Franc xamoon naa ne dimanche tey ji stade Iba Mar mënul mucc ci moom waaye di ngeen gis lamb ju neex lamb ju rëy lamb ju garaaw Franc si na Émile François Gomis a ngi noonu mbokk yi mbokk yi Franc si na ma nga noonu ndeysaan Franc dugg si na ndeysaan mu ngi noonu ndeysaan Emine François Gomis ma nga noonu ndeysaan ma ngay dugg si ndeysaan ma nga noonu ndeysaan ma nga noonu Franc ngi noonu yëkkati na loxo bi yëkkati na loxo bi ndaysaan mu ngi noonu Garaam may ma rek photo bi. Franc noonu di sottee ko butéel ab. ma nga ca débat ba. dugg si moom Franc dugg si ma ngay ñàkk. stade ba jug nañ ma dugg moom Franc ndeysaan ma nga noonu ma ngay bind rëdd na ci xibla yi samp na bee jën bi ndeysaan ma noonu moom Franc ma ngay léemu ndeysaan ma ngay léemu ndeysaan ma ngay léemu daw daw na ma wër oh Franc dugg si na ci compétition bi mbokk yi lamb ju nar a garaaw Franc ngi noonu tey ndaanaan yëpp ay daje ndeysaan ndaanaan yëpp daje ma di dem moom Franc leket ya génn na Ndeysaan ma nga noonu Ndeysaan Franc wa ngi nii mbokk yi dimanche bi weesu heure bi mu ngi ko fekk fële Ndeysaan ñu ngay gas ñu ngay sotti ndox mi ma tis ma ñaan ma ngi koy Franc raay waat na ko moom Franc <laughs> raay waat na ko moom Franc eh. ay Franc waay jox na gaay ndeysaan ma nga noonu ma ngay wër ndeysaan ma ngay léemu tibb Franc ngi noonu ndaysaan ma ngay dem ma nga noonu di dem ma ngay wër Franc ngi noonu di ñëw ndeysaan Franc ngi noonu di ñëw cey li bi door Franc ngi noonu di ñëw Franc ngi noonu di am na lu mu wërale ba pare ma ngay moom Franc Ndeysaan ma nga noonu ma ca débat déb bi nga ca xarfa xufa bi Franc ma nga ca gàllaaj ya ma xool fan lay samp ci mikaayam ma ngi xool ma ngi ndaysaan samp ji na ko fële la koy samp ndaysaan Thank you.

Mamadou Thiaw Mandiang Tine Mamadou Thiaw Alassane Sarr Doro Ndiaye Alassane Sarr Babacar Tine Saliou Faye Babacar Tine Saliou Faye Ousmane Pouye ci animation merci mbokk yi Doudou Sané noonu dugg si na ma nga ca digg géew bi ma ngay def ay débat débam ma ngay bind di léemu def ci ngemb li moom Doudou Sané jaayu noo ma ngay dem ndeysaan ma ngay dem coppite am na ci diggante bi fa Serigne Ndiaye 2 defoon ci bi kaayam bi weesu foofu la ko Doudou Sané def xoolal soow mi xoolal sengoor yi hee Doudou Sané mbokk yi Doudou ngi noonu ndeysaan xoolal ñi mu àndal ndeysaan Doudou Sané ngi noonu ndeysaan l'enfant de Diof Yor a ngi noonu ndeysaan ndaanaan la ci mbër ma ngay toog ma ngay toog toog na tàllal na tànk bi toog na ci cimikaay bi ma ngay def débat débam ma nga ca wàllu débat déb bi këpp na leket suuf la am samp na jël na béjjën ba samp na ko jàkkaarloo na géew bi génne na beneen samp na ndaysaan ma ngay samp génne na wat beneen samp na ndaysaan samp na ko ja ma nga noonu moom Doudou Sané ma ngay def ay débat débat butéel yaa ngay génn butéel baa ngay génn ndeysaan butéel ba génn na na ma ngay teg

<laughs> ah waay beleen na sax ci biir compétition bi ma nga noonu moom it moom Blindé bu Grand Médine ci compétition bi làmb gi ndaysaan fan yee daa nekkoon di préparer lee di MMA ba mu ci tay gis ngeen ko ñëw na fii ci stade Diop Iba Mar bindu si noonu yëpp bu ci nekk fu mu dem moom lay wuyoo Serigne Ndiaye 2 moom lay wuyoo ci bëre dóor bi ndeysaan koréas da koo dab ndax wow gi mu wow dëgër gi mu dëgër mën a bëre gi mu mën a bëre ndeysaan Moussa Diafat doomu Diafat la mënta ñàkk te Moussa la tudd ñu daafat Ada Boy Baol a ngi noonu ndeysaan ma ngay léemu yëkkati na loxo bi moom Ada Boy Baol ndeysaan Ada noonu Ada a noonu ndeysaan Ada Boy Baol dugg si na ndeysaan Ada Boy noonu taydu du yomb ndeysaan Ada Boy a ngi noonu ndaysaan aada ngi noonu ma ngay jéggi moom aada boy bawol champion la aada ngay léemu ma ngay dugg Serigne Ndiaye de dugg si na aj na loxo bi ci jublu na xibla yi ndaysaan ma nga noonu des ngeen kamay àndal ànd ak moom <laughs> ndaysaan ma sëriñ ba xàmmee ngeen ko ma ngay ndaysaan ma ngay nuyoo aj na loxo bi ndaysaan aj na loxo bi ndaysaan aj na loxo bi moom Serigne Ndiaye ma ngay léemu ma ngay <laughs> ku nekk sa problème nee na day rendi nee na day rendi nee na day rendi ma ngay yëngu moom Serigne Ndiaye laa ilaaha illallah ah waay lamb ji commencé na waay ma ngay léemu léemu na ba noppi sottee ko na ay bitéelam ndeysaan ma nga noonu aj na loxo bi benn loxo di joor bi ndeysaan ñu ngi koy sot butéel yaa ngay ñëw gannaaw ba Doudou Sané duggee ginnaaw ba Franc duggee Serigne Ndiaye dégg noonu dugg si ci compétition bi ndeysaan ma nga yëngu <laughs> laa ilaaha ay waay làmb ngi nii waay i njaay de dugg si na ma ngay sotteeku ma nga yëngu yëngu na ndeysaan yëngu na yëngal na yaram bi yëngal na ko <laughs> ma ngay dox ma ngay tey mënut a yomb. adim adim adim. déedéet ma ngay dem ci géew bi ma ngay wër di wër di wër. Ndeysaan ma ngay wër moom Serigne Ndiaye ma ngay wër Ndeysaan ñu ngi koy wisal ndeysaan Toubacouta ngi noonu buuru Saalum nday saan nga noonu aj na loxo bi ndeysaan dugg si na moom Toubacouta Toubacouta ngi noonu ndeysaan ma nga noonu cey lam ma ngay sotteeku Toubacouta nga noonu <laughs> ndaysaan champion la ndaysaan ndaysaan yëkkati na sengoor ba sottil nañu ko butéel ndaysaan mu ngi noonu sengoor ya ñu ngi ko koy jàllaleel jàll na yëkkati na ko ma ngay jàllaat jàll na ma jàllaat ndeysaan jàll na waaw waaw moo noonu di dugg si moom Toubacouta ndeysaan ma nga noonu ma nga noonu ndeysaan ma nga noonu di rëgg